bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa ilma lana illa maa allamtana innaka anta alalimu alhakim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 ñu ngi julli di sëlmal ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam mi fm 97 point 5 del suwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk ibrahima drame ci wàllum xarale gi jaawo jallo mbokk yi yéen a ngi fàttaliku bañ doon taxawak yen suñu alwo ju mujj ñu ngi taxawoon ci buntu bi nga xamante ne mooy ngénneel ba nekk ci tabaski ngénneel ba nekk ci fukki fan yu njëkk yi fa suñu borom tabaraka wa di géñee ci waxtu ak temps wala ci waxtu ak jamono tey ba léegi ci ngëneel yooyu ci fukki fan yu njëkk yi buur yàlla subhaanahu wa taala mu daldi ñu baaxe waxtu ci am importance waxtu woo xamante ne mooy juróom-ñeenteeli fan ci weeru zilxijja te mooy weeru tabaski buur yàlla tabaraka wa taala di fa yenkeewal bi sallallahu alayhi wa ci taxawaay bi nga xamante ne day màndargaaye taxawaayu bés pénc mooy taxawaay bi nga xamante ne ujaaju baytullahi alxaram ña ngi koy taxawee foofu ca makkatal mukarram ci wenn landa foy foy boo xamante ne lu dul mbaaxu yàlla doo fa xàmmee kenn munoo faa xàmmee kii mooy kii munoo faa xàmmee kii mooy baadoola bi amul kii mooy faqiir aw kii moy xani munoo fa xàmmee ana kuy pauvre munoo faa xàmmee ana kan mooy riche bi waaye ñëpp benn pied d'égalité la ñu am ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala mooy ujaaju baytullah la ñëpp man ko tudd mu doon màndargaay boo xamante ne ndaje bu mag ndaje bu am solo kenn ku nekk di won borom bi tabaraka wa taala nii ma nekkee nii yaama ko sant yow dong yaa tax ma di ko def ñaari sëre yama taraxlaayoo nii moo am naa yére yu rafet moone am naa yére yu baax waaye bëgg laa won ne sa jaam dong laa yay sama buur bi ma sant ngir ma meloo melokaan wi ba tax na lii yaa ko waral amut chef amut borom alal amut faqiir amul ganiy amul planton amul patron ñëppay bokk yem ci wenn sol win bi nga xamante ne moom la ñëpp di sol ñëppay bokk yem ci benn melokaan bi nga xamante ne moom la ñëpp bokk di melo wenn sër bi ngay takk ak weneen sër bi ngay taraxlaayu boole ko toroxlu boole ko di woo sa borom di ko ñaan di ko ñaan teraanga àddina ak xiiwalu alaaxira di ko ñaan bu musal la mbugalu safara ak mbugalu bàmmeel mu xéewalal la xéewalu ak keru xéewal ba nekk fa moom ñu di ko duppee aljanna ndegem ñaan boobu la ñuy ñaan keroog ci béréb boobee moo tax yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di ñu baaxee mu ñu xamal ñaan ba gën ci ñaan ñi lépp la waay di ñaan keroog yow arafa baax na lool waaye yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama moo ñu ne xayru arafa gën ci ñaan mooy ñaan ba ñuy ñaan bésu arafa yonentu bi sallallahu alayhi wa daldi joxe mu ne wa xayru ma qultu ana wannabiyuuna min qabli gën ci wax wax ja gën fa yàlla wax ju am valeur fa yàlla la may wax man ak yenenti yam jiitu wax yooyu lañuy wax mooy wax ba gën fa yàlla mooy wax bu gën a ëpp solo fa yàlla mooy kàddu yay yàlla reconnaître fa moom moo ñaan bi soriwul ñaan bi jafewul ñaan bi dangaa dëggal ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudut yàlla moom dong nag amul dara lañ koy bokkale mboolem xeetu nguur yu kawe moom dong la mboolem xeetu cant yu kawe yi moom dong la ñeel yàlla te moom yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo am kàttan ci bëpp mbir mooy dogal la ci lépp nag waaw moo tax nga jàng ñaan bi nañu ko yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa mu ne ñaan ba gën ca ñaan ya doomu aadama bi di ñaan bisu arafa mooy muy wax ne laa ilaha waxdahu laa sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir mbokk yi aka neexoon ñu xam la ñaan bi di tekki aka neexoon ñu xam la ñaan bi di wundu waaye aka neexoon ñu xam maanaa ñaan bi ñaan bi da di ñaan boo xamante ne yàlla dong ngay fisal fii raxuloo ak moom dara boolewook moom lenn moom kottu rekk képp nga fi tudd gannaaw bi nga ne laa ilaha illa danga dàq lépp lañu war a jaam nga saxal kenn ku ñu war a jaam mooy kan mooy yàlla boo nga ne laa ilaha amul benn buur amul lenn lu fi nekk di yàlla illallah kudut yàlla te kooku mooy allah kon danga dàq lépp li fi nekk ñu di ko jaamu yow danga dàq loolu yëpp ne dara saxu ci nga daal di saxal la nga saxal mooy illallah kudut yàlla donc rekk fi nekk amul dara li fi nekk li ñu war a jaam kudut yàlla amul lenn luñ fi war a jaamu ludut yàlla yàlla dong moo fi nekk mu di yàlla ba nga xamante ne moom la mbindaafoo ni war a jaam nga daal di si teg ne wahdahu moom kott nag rekk kepp kenn ba doon cappaacolle ba nga xamante ne amul lenn la ci moom amul dendandoor kenn la ci melokaanam kenn la ci nguuram wahdahu moom kott nag nga daal di si teg ne laa sharika lahu amul dara la rax fa moom nga daal di si teg ne lahul mulk mboolem xeetu nguur yu kawe yi yàllaa ko yore ci loxoom la nekk nga daal di si teg ne walahul hamd mboolem xeetu cant yi kawe yi moom dong moo ko yeyoo moo ko moom ndax waxuwa moom yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir nag xadir ki ci am kàttan mbokk yi ñaan bi buñ ko naree décortiqué ñu war ko taawil wala ñu war andi taaliqaat du ñu jóge ko ci bërëb bi tellement dafa bëri importance tellement dafa bëri ay ruq-ruq yu ñu war a dugg ñoddi fa yoo xamante ni xajul ci émission bu ñu war a am trente minutes waaye ñu géem a góor-góoru rek lañu ci yàlla wërsëgal ñu doyloo loolu kon la yenentu bi ne xayru du'a yawmu arafa gën ci ñaan ci bésu arafa mooy ñaan bi mu ne ñu wa xayru ma qultu ana wa nabiyuuna min qabli la gën ca la may wax man yonenti yàlla muhammad ak la gën ci yonenti ya ma jiitu ñu di ko wax mooy baat bi laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na amul benn baat amul benn kàddu amul lenn la doon wax la gën baat bi ak yonent yu ma jiitu yonent yu ma jiitu mboolem seen amuñu benn baat ba ñuy wax la gën baat bi ba tax na yow julit bi boo ne laa ilaha illa kon déggal nga saxal nga wéeral nga ne amul benn buur amul wenn yàlla bi fi nekk di yàlla kudul allah te kooku moy yàlla boroom asamaan juróom ñaar kooku allah kookoo bind asamaan juróom ñaar yañu alquraan di nettali kookoo bind juróom ñaari suuf ya nekk ci suñu ron ñu di ci dox ñu di ci tabax ñu di ci xalli suñu yoon di ci def sañ lépp loo xamante ne soxla nañ ko te suuf bi ne teg fekk amut ndigal du yëngatu du bouger du def dara la tax doomu aadama bi di tiit kon yàlla mi sànni mbaaru asamaan suñu kaw ñu di ko seen mu tiim ñu yàlla boobu mooy buur bi nga xamante ne wa anzala min as-samaa'i maa'an moo am coobare ak ci nammeelam mu di ñu wàcceel ndox bi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo taw tey boo ne yi ne na ngeen ñu tawal naam dinañ ñu tawal waaye du mel ni taw ba jóge ko asamaan shattaana maa baynahuma ak ñoo wuute yàlla moomu mooy buur bi nga xamante ne ci kattanam mooy jëlee jant wi ci penku di ko yóbbu ci sow jant moom ci borom bi tabaraka wa ci kàttanam buur bamu mu doon nguur yu kawe ya nekk fa moom mooy compil nguur ya nekk fa moom ci coobareem di ko dënk kenn ci mbindaafoonam mu doon buur bi nga xamante ne soxlawut ndimbal ci lenn eh, la muy defal mbindaafu na ndax moom képp la moom kott la subhaanahu wa taala nga daldi di si teg ne laxul mulk mboolem xëytu nguur yafa musi jaar ba àdduna sosoo bi suñu jonni jamono ji tey képp ku buur yàlla moola compal as ci nguuram ba yelloog nguuru doomu aadama mu daal di la ko baaxe boxtu nasar ma fi nekkoon di buur yàllaa ko compil la mu doonoon buur ci jamono nabillahi suleymaan ba fa nekkoon buur yàllaa ko compil nguur ba mu nekkee woon astuut la tolloog la mu war a antal yàlla ko compal ci nguuram lu toll ni la suleymaan antal alayhi salaam firawna ba fi nekkoon buur yàlla ko compal astuut lamu mu doon nguuroo jamonoom la toll ni la mu war a antan ci jamonoom waaye Zulqarnayn ba nga xamante ne am na lenn ci boroom xam-xam yi ñu ne bokk na ci ñu nguur territoire àddina ci jamonoom moom it loolu mu nekkee woon ci jamonoom nguur ba mu nekkee woon buur yàlla mooko ko compil ak yeneen ya ñu xamul te yàllaa leen compal astut ci nguuram baaxee leen ko teewul nguur yàlla jeexul bi ilaa yawmina haada wa ilaa yowmal qiyaam bi su bi suñu jonnuy tey jii walla ba keroog bés pénc yàlla soob dina compile compil as li nga xamante ne mooy nguuram te daara du buuse ci nguuram moo tax nga ne ko laxul mulk mboolem xeetu nguur yu magi ci sa loxo la tegu bépp doomu aadama bi nekk fi di nguur bépp doomu aadama bi fi nekk di buur nguur boobu noonu muy nguuroo yaa ko ko yenkewal yaa ko ko baaxee yow yàlla te teewul sa nguur xaajul bay jeex ndax doo buur buy jeexal la nekk fa yow du jeex moo tax boo demee ci alquran nga dégg fa borom bi tabaraka wa mu di wax ne ma indakum yanfad wa maa inda allahi baaq la nekk fa si yéen doomu aadama yi day jeex la nekk fa yen bindaafoo ni day jeex ndax yéen da di jeex kër gi ngeen nekk di àddina day jeex waaye nag wa maa inda allahi baaq lan ne fa yàlla du xaaj du jeex te loolu mooy sax ba faw ndax yàlla du jeexal du buur buy jeexal kon la nekk fu moom du xaaj bay jeexal kon nga ne ko laxul mulk mboolem nguur yu mag yi ki fi musa doon buur nguur bam doon nguuroo yow yàlla yaaka ka baaxee subhaanahu wa nga teg si ne ko walahul hamd mboolem xeetu cant yi yow la ñeel yow yàlla ndax yaa ma fi andi andiwu ma fi sama bopp kama yaakaar fii ci kiru àddina andiwu ma fi moom it andiwu fu boppam kon yow mi ñu fi andi ah yow yàlla yow la war a sant de mboolem xeetu cant yu kawe yow dong la lañuy la jëfandikoo ci xeetu xéewal yow yàlla yaañu ko baaxee yaañu ñu xamal nañ koy defare yaañu xamal nañ koy yittewu nuñ koy jëfandikoo tamit yaañu ko xamal waaw bu duwutoon xam-xam ba yàlla xamal lenn ci askanu senegal plan national ba ñëpp di tiitaroo ne mooy ceebu jën ana ñu koy toggal man de xawma ko kon boo gisee tey ñu jël def ko plan national mu nekk patrimoine comme nu ko taalibe nasaraan yi di waxee mu nekk suñu plan national ba léegi ñu ne dugal nañ ko si patrimoine sénégalais kon yàlla woo mu xamal lenn suñu maam yu baaxee nañuy defaree ceebu jën ba ñépp xamee ko senegale yi bu di wutoon xam-xam ba yàlla yenkeewal suñu maam yakkiree woon plat bu ngi naan ceebu jën te sant yi ma xam ñu bëgg ko lool waaw sant saane yi ñoom daal ah, la yàlla xam nañu ñu doy loo loolu waaw ñooñu yàlla xamal plat bu baax boobu bu duwutoon xam-xam ba leen yàlla xamal nu ñuy composé jën bay jóge ko ci ndox ak ceeb bay jóge ko ci tool ak diwlin be nañ koy composé ba ñu am palaawu ceebu jën bu duwutoon xam-xam ba yàlla yenkee wal suñu maam yooyu ana fuñ koy jànge kon doy na rek ñu ne kon yàlla mboolem xeetu cant yu kawe yow la ñeel ndax yaa ñu xamal lañuy jëfandikoo la nga xamante ne mooy suñu ñam ba ñuy jëfandikoo te loolu noo koy xamee tey sénégalais bu jógee ko Afrique de l'Ouest fii dem fenn ci àddina ñu defal ko seen lekk ci xob moom bool la tàmm assiette la tàmm tey ñu di ko defal ñam ba muy jëfandikoo ci xob ñam bi na mu am valeur valeur valeur waaye fiñ ko yekkal du foofu da koy siixlu bu koy jëfandikoo tamit xel bi du dal ndax moom palaa la tàmmoon di ñu di ko fa yekkal aset la tàmm ñu di ko fa yekkal waaw tey la mu tàmm woon gisu ko lam daan jëfandikoo du loolu lay jëfandikoo fu ñu ko daan yekkal du foofu lañ ko yekkal mais lii mooy lan kon yalla ma la xamal la nga tàmm woon tey nga ñëw tukki dem fenn gis fa loo xamante ne tàmmoo ah boo dul seetlu kawteefu yàlla ci jaww ji boo dul bàyyi xel kawteefu yàlla ci jamono di nga weddi yàlla foofu weddi yàlla mooy la la gën a jege ka sant ko waaw ah, ndax boo ko rejeté rek mooy weddi nga yàlla weddi nga fu yàlla parce que lim la tàmmal lim la xamal du loolu dong la yàlla yore. foofu nga ko tàmmee loolu nga tàmm fa nga nekk loolu moo méngoo ak sa béy sa environnement mais saa yow gisee leneen lu wuute la nga nekkee woon boo bëggee sant yàlla dangay xam ne ndekete lii ma nekkee nii lii nii mu ngi ci xéwalu yàlla yi tamit tey la ma won lii tey laa gis lii tey laa fekkee lii waaw nii ngay xamee xéwalu yàlla ci bërëb yu fasante ko lu bokkul ak yow li nga xam lu bokkul comme yow ni nga nekke wala lu bokkul ak yow li nga tàmm di gis walla li nga tàmm di jëfandikoo kon loonu ngay xool kawteefu yàlla ba tax na doo gaaw a weddi njekk ah anam boo gis ci sa bopp nga nekkee ko walla nga meloo ko xamal ni lii xéewal la ba yàlla denc tey la ma ko won tey laa ko nar a nga dund ko nga xàmmee ci su ko defee yow it bés di nga ko mus a nettali gis nga bi mu tukkee dem béréb sangam ñooñu bu ñuy jëfandikoo seeni ñam nii lañ koy jëfandikoo nga mën ka nettali mu doon lu concret lu palpable waaw su ko defee nii lañuy ñuy sante xéewalu yàlla waaye doy na bi léegi ñu war a sant yàlla ci xéewalam yi ndax moom moo yeyoo mboor xëyitu cant yu kawe oxygène ba ñuy nooy yàllaa ñu ko offrir amul facture amul dara oxygène bi mënuñoo sonal ci lenn xanaa ñu mu dogal ñu yore nattu feebaru la tax seen nooy bi day bloqué waaye bu dul loolu aglabiyan jullu naas lu gën a bari ci nit ñi lu gën a ëpp ci nit ñi seen nooyukaay bi amul benn problème sama nooy bi yàlla daf ma coupé nee na fayu ko kenn musu koo dégg kon nooy boobu noonu ngay xëcc di dugal yàlla fayeeku la ci dara dala ne rek nanga ma ci sant ñàkk kaa def tamit wàññu ko dara ndax yow boo ko santul am na mbindaafoon ña koy sant ci ñooñu yàlla da leen bind ngir ñu sant ko rek ci melokaan ba leen yàlla bindee noy wa taala ngay xëcc di ko génne ba léegi musut laa fayeeku facture musut laa fayeeku dara mboolem xeetu cant yi ndegem yàllaa ko yeyo loolu mooy li am loolu mooy dëgg xoolal lañu jóge jëfandikoo ci suñu ndawalu lañ doon jëfandikoo ci añ des na tuuti lañuy jëfandikoo ci ndawalu gàtt yi mooma bañ koy jëfandikoo nu mel ba mu duggee suñu gémmiñ nam fay mel ba keroog ndox ak acib bakay koy wol mooñ ko mu mun a ritax jàll ci put bi wàcc ci biir bi mu nekk étape yoo xamante ne yàlla ci mbaaxam mu nëbbale ko bi gisoo ko tàngooru biir bi daldi ko tàngal lay dem ci deret bi loolu dem ci deret bi la yaram bi soxlawut mu doon dese loolu war a génn suñu borom subhaanahu wa taala nëbbala loolu yépp santiment dong nga ci am doo gis lenn lay transformé ñam boobu nga doon lekk ci plat bi jànk tiim xooloon ndox bu ñuy naan ndox bu weex tal neex a jàllale waaye boo dagee yaramu doomu aadama ndox bu weex boobu du loolooy génn lu xonq lay génn te loolu mooy deret waaw yàlla meeñu ci xéwalam ca la tax ñu war koo sant mu meññi ñu naan ndox bu weex tàll ñu accepté ko consommé ñu am xel bu dal ngir consommé ko ñu am xel bu dal pour jëfandikoo ndox boobu ñu accepté ko waaye ndox bi bu mu amee diir suñu yaram buy génn asib lay doon te asib boobu naan ñu ko de ndox boobu am diir suñu yaram mu soppaleku nekk deret deret boobu noonu du moom lañ naan de moo mennum ndox dong lañu naan ndox bu neex ndox bu neex a consommer ndox bu ñu accepter pour jëfandikoo ko waaye bu demee ba yaram bi togg ko mu transformer ko bii mu doon acide mu war a génn ñu di ko tuur soxlaatuñu ko beneen bi nekk ak suñuy yàpp yaram sidit beeg yax yeeg xol beeg cerveau yeeg neer yi di fa jëfandikoo loolu mu doon deret boo daggee doomu aadama walla sa yaram bu daggee du ndox mooy génn lay génn du loolu nga naan tamit su ko defee loolu yëpp xéwal la ba xéewalal ba tax na ñu war ka wara a mën a sant ne ko walahul hamd mboolem xeetu cant yu kawe yi yow yàlla yaa ko yeyoo yaa ka moom yow dong yaa ko médité nga daldi di si teg ne wa huwa moom yàlla ala kulli shay'in lépp lañ leen wax dipi jaamu ko moom dong bañ kaa bokkaaleeg dara mboolem xeetu nguur yu kawe yi moom moo ko yeeyoo moo ko yore mboolem xeetu cant yu kawe yi moom moo ko yeeyoo moo ko yore ak la ci aju moo tax nga ne ko waxuwa moom yàlla ala kulli shay'in ci mboolem mbir yeñ leen limal ak yeñ leen limalut yàlla moo am kattan ci loole moo tax nga ne ko xadiir ya am kattan ci lépp wa huwa ndax moom yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir xadiir ku ci am kattan bu mat la sëkk sëkk kattanu yàlla ci mbir yi kenn du ko mun a waxtaane kattanu yàlla ci mbir yi kenn du ko mun a joxe ko màndarga kattanu yàlla ci mbir yi kenn munu ko tegtal ba xel takk ko wala ba xel daj ko xanaa kañ yow yaay doxal sa xel sa xel bu rafet bala yàlla may nga di ko jëfandikoo ci sa jëmm ndax loolu lañ ñu joxoñal ne ñu wa fi anfusikum afala tubsirun ba xam seen jëmm yaram ba ngeen nekkee seen jëmm yaram ba ma leen baaxee ba xam du ngeen fa sama kawtiif ci nan jëlal seetu taxawal xoolal sa ñaari loxo yi xoolal sa ñaari épaules yi xoolal sa ñaari tànk yi xoolal sa ñaari dënn yi xoolal sa ñaari bët yi xoolal sa ñaari tuñ benn bu nekk dafa wuuteeg moromam noonu nga koy jàppoo lii en face dong la nga turne joxe wet nga gis beneen mbindin nga joxe beneen wet nga gis beneen mbindin nga joxe ginnaaw gis fa weneen mbindin subhaanallah appareil téléphone yu ñu yore kenn ku nekk sa basma sa empreinte bokkul sa basma keneen sa empreinte bokkul empreinte keneen wa fii anfusikum bu tubsiroon lii yëpp kawteef ba yàlla def ci doomu aadama kon yàlla amul dara lu mu tële ci dundu doomu aadama ndax moo ko bind moo ko composé la mu nekkee kawaru bopp yi tey jii boo ko naree compter fii ngay fanaan kawaru sikkim yi ila axirihi kon boo déggee ñaan bi jeexee wa huwa kulli shay'in qadir moom yàlla moo am kàttan ci bëpp mbir commencé rekk di xool dinga xam ca dëgg dëgg dëgg dëgg bu caaxaan weesoo yàlla am kàttan ci lépp nag keneen ku dut moom yàlla danga nga te amoo kattan ci dara a duñ amoo kattan ci lépp waaye amoo kattan ci dara ndax dangay ngay fàtte da nelaw da ngay am soxla ci sa bopp ah soxlay nit ñi boole boo ko naree taxaw tamit yàgg-yàgg di fi mus a jógee bàyyi leen seen soxla wa illaa nga taxaw ne leen léegi doy na cent maa ngi taxawee seen soxla léegi doy na waaw da ngay xaddi wala nga néew kàttan wala nga néew doole kon doomu aadama euh, bariwulewul doomu aadama dafa néewle doomu aadama dafa néewle ci lépp ci lépp nag néew kàttan néew fan néew at néew gis-gis néew xel doomu aadama daal xattaa bu fi jógee ko sax dañu naan néew bi waaw kañ turam dëggintaan mooy néew bi néew nga ci lépp nag tey jii lañ lay takk jébbal la sa borom mbokk yi yal na jiix waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax ñu war a joxe xibaar ci nasaraan ñu ngi nii taxaw ñu war leen jébbal béréb bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana amiin yaa rabbal aalamiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim allahuma aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wulaata umuurina asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu